برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن ñu da daan na wax ragal yàlla bul jël ragal ragal gi mu jaar sa diggante ak yàlla bul nangu leen jaar sa diggante ak yàlla ragal gi nga ragal yàlla sax bu mu jaar sa diggante yàlla ndax su ragal gi jaaree sa diggante nan lay mel da ngay jël yàlla def ko mu jaar sa diggante ak lu dul yàlla loolu mooy ragal yàlla waaye nekkul nga jël ragal gi jaarale ko sa diggante yàlla kon ni nga yàgg yee ko yàlla taqwallah أن تجعل الله وقاية فيما بينك وبين ما سواه da ngay jël yàlla def ko muy défense sa digganteeg lu dul moom waaye nag nekkul ne laa kama qiila an tajala taqwa wiqayatan fii ma baynaka wa bayna allah nekkul ne da ngay jël ragal yàlla gi nga jaarale ko sa digganteeg yàlla kon day nekk ñax ci yow ak ragal gi ak kañ ragal te da ngeen fa yàgg waaye yàlla soo ko buggee xam rek da ngay def ni Baay radiyallahu anhu wax nee na da ngay xool watlu murabbiyan xabiran kaamila irfaani imaaman saalihan da ngay xool koo xam ne moo taxaw ci place bi place bi nag su ma ko mooy dëpp jamono boo rek am na ku nekkal yàlla ci kaw suuf dëpp jamono boo am na ku nekkal yàlla ci kaw suuf su nekkee ne yegg ak loo dox dox xamal ni doo yegg yàlla ak loo mën a jàmm yàlla ak loo bëri xam-xam soo yeggul ki taxawal yàlla ci këy ji yow doo yegg yàlla kooku nag dafay am melo melo yi mooy melo yi ci yàlla yi ni ñuy meloo kooku ñu ne eh, eh, wali cheikh ayatun ida lam takun lahu fa ma huwa illa fi layalin hawa yasri ida lam yakun ilmun ladayhi bi zahiri wala batinin fadrib bihi li mu ne sëriñ am na ay kéntaan day am xam-xam xaqiqa bu doy am xam-xamu seen yeggu tey sëriñ bi la yeggal ci yàlla ndax fekk fees na ñaari maqaama yi ida lam yakun ilmu ladayhi bi zahiri wala batini fadri ci jurihi fil bahri radiallahu anhu nag moom boole na ñaari géej yëpp ndax kañëwoon seet ndax bàyyi sëriñu tarbiya la rek wala sëriñu jàngalekat la ba mu koy jógee def ne su ma ñibbee lan laay wax sama gars yi su ma ñibbee ban sëriñ laa wax gis naa ko ndax su nekkee ne ci tarbiyu gisuma ci ku mel ni yow su nekkee ne ci jàngale la gisuma ci ku mel ni yow su ma ñibbee man lan laay wax sama gars yi ak seexu tarbiyati am seexu tadris anta alladi bi kilal haadayni muttafiqun lillahi darruka yaa adubu iblis nit nag su buggee yegg yàlla day summi lépp loo xam ne rëy rëy ci moom képp ku mu gis su nekkee ne sax moo ëpp kooku maqaama na suufali ci kooku ndax benn buur ñëwoon na ci Abu Yazid ne ko damaa a yegg yàlla mu ne ko da ngay jël benn pañe boo xam ne pañe yi ñuy jaayee ko ko jamono boobu pañe yooyu ñu ñàkk ñi rek ñoo ko doon yor mu ne ko da ngay jël pañe boobu nga nga sol ci ay koko ba mu fees nga jaar diggante marché bi di wax a ko ko a ko ko ba mu jar moom yëpp nga doog a ñëw jamono jooju ma yeggal la yàlla mu ne ah abu yesi njoor moom wax dëgg yàlla mën ko ko bu toll ni man ma jaar si marché bi yor ay koko ñu di jaay di jaay mu ne ko nag sa réy googu nga yëg ba nga ne buur nga loolu moo lay tere yegg buur bi soo bëggee yegg buur bi da suñu sa buur ba xool nag loolu moo tax bàyyi nee ne am na koo xam ne sikkinam njëriñ na ko si yàlla waaye am na koo xam ne sikkinam lor na ko si yàlla woon dafa yoroon xayba ba soo ko gisee nga ne wali yàlla bu mag daa ngi ne wala kee la sax ndax jëmm ji ak faas gi mu yoroon kenn yoru ko woon ci jamono bu bugg a yegg yàlla nag ñëw si benn wali yu ci jamono boobu kooku ne ko da ngay war ci kii soo buggee yegg yàlla nag ah, ah, ah. ne man buur yi su ma yi sama bi laa di gisee li ma a am si àdduna sama sikkim bi laa ko amu a yeggal ma yàlla wala ba sama sikkim nag mënuma ko wat mu sa sikkim bi rek watoo ko rek doo da nekk la mag mooy rabbana tabaraka wa taala e mu daal di dellu xamul yàlla bàyyi na ci sikkinam jig ko waaye am na ku sikkinam jig muy Ghazali da ngeen dégg Ghazali imam Ghazali yàlla gu màgg la woon moom yàlla def ko nattoo woon ne dafa am rakk boo xam ne na yàlla xam na yàlla waaye moom nag moom si boppam moom Ghazali xamul yàlla waaye jàng na téere yëpp bañ jeex fànn bu nekk Ghazali dugg na ci fànn bu nekk Ghazali xuus na ci jàng ba jàng falsafa ci jamonoom amul kenn kuñ koy tuddee waaye nag xamul woon xam yàlla ndax jàng ak xam yàlla dañoo bokk jàng xam-xam la jàng xam-xam la waaye ka ñuy xam si xam-xam bi mooy yàlla kon xam nga xam-xam ak la ñuy xam ci xam-xam bi bokkul mhm. nit mën na jàng ba fees waaye du tax mu xam yàlla loolu yoon la jëm ci xam yàlla rek waaye du xam yoon al ilmu ilmun wal maalumu maalumu xam-xam xam-xam la waaye la ñuy xam si xam-xam bi tamit loolu àkkotal bokkul yàlla nag mooy kooku man nga jàng ba ne er suñu laajee fan la yàlla féete nga daal di gëm di xoolaat doo ko xam parce que jàngoo yàlla yow xam-xam nga jàng yàlla nag mooy ki ñuy xam kooku kenn du ko jàng léegi Xasaali gis na rakkam bi moo ngi waxtaan ci yàlla loo xam ne moom mënu koo waxtaan ci yàlla te moom xam na ne moo ëpp xam-xam jàng loo xam ne jàngu ko fii ci Fuuta gisoon naa fi benn waay boo xam ne dafa tarbiyu xam yàlla nijaayam sëriñ la gu mag si nijaayam di jàngale sax moom def ko doon corrigé si biir li muy jàngale te moom jàngul woon dara xamul woon dara am benn bés sëriñ bi nijaayam di jàngale ba ne yàlla moo ngi ci bépp place mu daal moom moom sax waa ji dafa yoroon almetam ci poosam moom jarbaar gi mu daal di génne almet bi ko ne ko nijaay yàlla ngi ci biir safara gi mu ne eh dangaa mu lakk. dangaa bëgg yàlla lakk la bëgg a wax ne moom pour moom yàlla ngi fépp waaye ci biir safara gi moom yàlla nekku ci xam nga kooku jàng na waaye xamagul yàlla kon jàng nga xam yàlla mu ne ko dangaa bëgg yàlla lakk su nekkee ne yàlla ngi ci biir safara gi. Ghazali nag rakkam googu di wax ci yàlla loo xam ne moom xamu ko ndax am na benn bés Ghazali moo nekkoon imaam jumaa ju mag jamono jooju ci Irak rakkam ji. ñëw fekk imaam Xasaali ngi jiite di julli moom mu julli booram julliwul ginnaaw Xasaali te Xasaali seulement gis rakam di julli mu naqadi ko lool bi mu génne mu ne ko yow lu tax nga woo sama ginnaaw mu ne ko man danaa koo xam ne moo ngi ànd ak deret jigéen mooy ànd ak man ku ànd ak deret du ma julli sa ginnaaw dangaa war a dem set ba pare ma doog a julli sa ginnaaw xam nga loolu da yeneen junj la yoo xam ne kenn du xam lu mooy nga bokk ci ñi ko war a xam mm-hmm. mu daal di naqarlu nag dem wax ko yaayam yaayam ne mu ne sama rakk bi tey julliwul sama ginnaaw léegi day jéem a woote yeneen maqaama yaayam nag woo ko di ko sëpp di ko wax yow dangaa war a topp ginnaaw Ghazali yi Ghazali sa mag la ku baax la ñëpp wóolu nañ ko borom xam-xam la ku ragal yàlla la yàlla def na ko muy imaam da nga war a topp ci moom rek soo buggee dem waaye nday wo mu ne ko li ma la yëgal mooy nga laaj ko ndax moom moom bi ànd ak deret wala àndul ak deret Gabaal yi daal di xalaat ne nekk moom yi muy dem jumaa kër bés boobu dajawoon nag benn jigéen yoo xam ne dafa ànd ak deret kooku di ko laaj ci àtt ak deret. su dee nga wax laaj boo xam ne day junj ne moom xamul yàlla bëgguma tasaare wax boobu foofu mais Gabaal yi daf ko xalaat rek ne ko wallaahi yaay li sama rakk bi wax dëgg na waaye nag duma ko bàyyi lu mooy mu xamal ma ka ko xamal loolu. te ka ko xamal loolu benn uude la ci biir marché bi. te pour Xasaali dem ci uude uude bi xamal ko yàlla lu lu parce que Xasaali jamono googu moo ngi mel ni nga waxee ne El Hadj Abdoul Aziz ci ci waawoon mag ma màggaay gi màggoon masalan ak maanu ci maandu woon ak wóolu gi ko nit wóolu woon ci àdduna fii ak ci àllaaxira niñ amee woon ci moom confiance ne nitu yàlla la maqaama googu la limaam Ghazali taxawal waaye nag pour nga wax Abdul Aziz na dem ci marché bi benn waayam toog uude la mu jox ko loo xam ne moom yoru ko xam nga day doy waay waaye nag mbir yàlla mel noonu rek mu ne ko fu waay ji a nekk daal rek moo ko yóbbu mu nañ def limaam ñu dem rek mu fekk waajaa ngi mu waajaa ngi defar dàll yi dàll yi yàqu ak ay pontu fii ak ay lu nekk mu nekk mu fekk waajaa ngi defar moom xasaar yi biñ demee ba gis waa ji rek bañ seen waa ji rek la ko rakkam gi ne waa jël la demal man fii laa yem mu daal di jël xasaar yi ñoo def asalaamaaleykum rek waa ji xool ndekee xasaar yi la i Mouhamadou xasaar yi aywa ñu koy léegi na nga def naka waa kër gi alhamdulilah ba mu paree xasaar ne ko nuyu yu bëri yooyu yëpp indiwu ma <laughs> li ma indi mooy li la yàlla dénk nga xamal ma xasaar yi borom dogu la ci yàlla léegi mu ne ko ah ci ci lu mel ni dàll ah dàll yaa ngi nii muy ubbi di ko wan ay dàll façon paire dàll yu nekk ndax nit yàlla jamono boobu dañ doon nëbbut daaw daawuñu woon feeñ dañ doon nëbbut rek mu ne koy eh, ah façon dàll yi yu bëri denc moo koy génn ay dàll yoo xam ko defar dàll yu gën a rafet di koy woon rek yi ne ko sëñ bi xam nga li ma wax nga nga may ma ci li la yàlla dénk naa la wax أن تعلمني مما علمت رشدا لي موسى وخم خلال خمال ما تهلا يلا خمال لابو دا خم خم li ci yàlla rek dama dajal mu xam la ko waaye doo ko xamee ci xalima ndax yàlla ñaar la wax nit ñi dañoo seetlu rek waaye allama bil qalami ak allama al insaana maa lam ya'lam bokkul oh allama bil qalami dafa xamal ci xalima loolu dañ koy jàng da ngay jël sa benn takk ci këy jàng ko mokkal soo ko jàngul doo ko mokkal ak allama al insaana maa lam ya'lam mu xamal nit la nit xamul woon loolu beneen borom xam beneen xam-xam la bokkul ak gële waaye soo buggee boole ñaar yëpp nga ne jàng naa rek xam naa ko yëpp dafay sonal sa bopp jamono jooju nag mu ne ko li la yàlla dénk mu ne ko nag yow nag yaa ngi bu man da nga fekk may liggéey sama liggéey laa yor loo naa la kaa jox su nekkee xam ne yoruma ko nag Ghazali man nga nga nga nga Moussa ma leneen lu dul nii la yàlla dénk ci xa yàlla moom laa bëgg na xamal ndax nee nañ ma borom xam-xam bu mu ne ko waaw su nekkee ne daal fasu nga ci dawu nga si mu ne ko ah mu ne ko duñ fi nekk si jumaa ji ngay jiite mu ko waaw bés bu nekk soo xëyee raxasee raxasee nañu yëpp te ñun ñëpp nañ la gis ngay raxas duus yi te ñu ne rasaani di raxas ko yëpp bés bu nekk soo manee loolu daal ma xamal na li ma yàlla xamal soo ko mënul daal hada siraasu loolu mu ne ko man loo ma teg attan naa bàyyi ne ne kii sikki na njëriñ na ko ndax dafa am lu muy liggéey ci sikkin bi ci kanam. dëgg la loolu sikkin bu rëy la woon mu dem commencé. di bale waaye ñi waa Irak yëpp dañoo waar woon ku toll nii xasaal yi dem di bale ay duus day téye bale bi lu mat téeméeri yi téye ne ko déedéet xasaal yi ñoo bale waaye mu mu sonn ci ñoom xëccanteeg ñoom bale ba mu jóge ñu bàyyi ko mu bale duus képp bañ jeex bés bu nekk su xëyee bale duus yi te moom jiite moom mooy jàngale waaw dañ koy xaar mu bale duus yi ñoom jàngale te mbooloo ñu doon jàngal kenn xamul nu toll xasaal yi kenn ku xam na ko borom taalib yu bëri su taaliful woon si àdduna lu may madaari junn fuus rek loolu doy na ko wala ihya ulumi diin loo xam xam-xamu diine yëpp dajal toog loolu rek doy na ko waaye mooy bale du mooy jàkk loolu ibra ibaara la ku nekk war xam rëy du dem si yàlla bàyyi bañ na ko ba wax ci ruuxul ne montagne du tee ndox taw tawee rek du ko tee waaye gis nga suuf moom mooy tee ndox léegi ragal yi di bale di bale ba am benn bët seen ñam daal di ko seet ñëw fekk muy jàngal rek mu téye ci nopp bi ah ragal yi kaay ma seet ndax liggéey nga liggéey mu téye ci nopp bi rek gars yi di kii mu di mu di moom mooy téye ragal ci nopp bi dafa oh, ma xool liggéey bi ndax mu baax na wala baaxul nekkee dafa bale woon duus yëpp ba des benn duus bale di damm mu yónnee xale pour mu jëlil ko beneen bale ndeke moom fàtte na ko daal di ñëw si njàng bi jàngale ñu seetlu bi ah bii de baax na bii de baax na ba yegg ci bu mujj bi rek sëriñ bi ne ko waaw ah, bii de baliwu ko di ne ko waaw bii dem bale woon ba si yàgg bale bi damm mu ne ko su dammee nga sa sikkin baa ngi fi bale ko sikkin bi xasaar yi naaw di ko bale sikkin bi rek am fas la foofu la rek si fi naawee noonu rek foofu la amee rabbaani yegg dafa naaw am aqida gu wér tëng ne moom insha allahu dana ko bale si kinam gi oh. yàlla xam si moom yéene gu gu googu hmm. mu daal di ko yeggal boppam hmm. ndax ku yeggul si maqaama gu sell googu doo yegg sa bopp hmm. doo yegg sa yàlla sa yàlla xamal ko nag kuy moom mu daal di jóg di ne fattayamantu بالسعيد زمانا وأنا الآن قد ذفرت بمائي من سرى مطبقا جفني وأضحى فاتحا لا يردها للأمان الله أكبر قد من لك دم تيم من ما جاك جاك قد تيممت بالسعيد زمانا سيسوف رك لا دانتين من هو اليوم قد ذفرت بمائي تيلا أم لخ تيلا أم نخ ndox mi jàppal bi yàlla di wax ida qumtum ila salaat su ngeen jógee ci julli jàpp leen faxsilu so soo yeggee yàlla dangay xam ne que raxas googu du raxas sa cëru zahir yi raxas sa cëru baatin ndax su zahir bi setee te baatin bi setul setu zahir bi njëriñ dara si baatin biir lay xool yàlla jàngal nañu ko ne seetuñ suñ liggéey seetuñ suñ taar waaye moo seet suñ xol xol lu mu muy firi mooy baatin su baatin bi setee lépp set na su baatin bi setul dara setul loolu moo tax benn xam yàlla mos naa jël kaamil benn xaan bu ne ko mu ne ko man nii jàpp naa ci fa may jàppee mooy maa ul rëy bi ci loxum faddu laa jàppee loolu moo tax ma téye kaamil bi mu ne ko loolu nag amul ndax yàlla def ne laa yamassuhu du laal kaamil bi illa al mutahharuuna mu ne ko firil ma mutahharuuna mu ne ko mooy ñiñ setal mu ne ko yow dangaa setlu waaye setaluñ la xam nga setlu ak setal bokkul xam nga mutahharuuna ak mutahhiruuna bokkul xam nga mutatahiru mooy ki setlu waaye mutahhar na mooy ñiñ setal suñ seetloo ay alquran bi danañ xam ne laa yamassuhu du laal alquran illa al mutahharuna la waxul mutatahhiruna ñi set ñi set setlu mais ñiñ setal la wax mutahharuna mooy ñiñ setal waxul mutatahhiruna ñi setlu al mutatahhiru mooy ki jël ndox rek dem waram defaru ba pare ñëw kooku mooy mutatahhiru mais mutahharuna mooy ñiñ setal mutahharuna la yàlla wax ne ñiñ setal mu ne ko yow nag dangaa set setlu waaye setoo man nag damaa sax xaw ma ndax xàjjal nit ñaari fi loolu il faut nga xam nga xam lugal arabiya nga doog a xàjjale diggante mutataxiru ak mutaxaru tuñ ci suñ nopp yi ci sa nopp yi noonu la moo nekkee nit nit fekk yeggul yàlla rek ci tiim la nekk nit te ni yeggagul yàlla ci tiim la nekk waaye soo xuusee si géej gi ndox mi féete la foofu féete la suuf nekk sa biir hmm. waaye nag soo ñëwaatee doo ko mën a expliquer nit ba mu xam ko xam nga am na loo xam ne ibaara du ko nangu mooy wax nit mënu la faa waxal ba nga xam ko damay wax toujours ne ku dégg safara gisu ko ak ku ku gis safara ak ku dugg ci biir safara ba safara lakk ko suñuy waxtaan ci safara duñ bopp li ñuy wax parce que kële moom safara jot na kaa laal xam na luy safara suy nettali safara xam na luy safara waaye nag lam xam safara yëpp mënu la kaa nettali ba ngay wax yaa ngi may lakk yaa may lakk bàyyi déedéet mënu ko dafay wax fam yem rek moom loolu moo tax yàlla ki xam yàlla suy waxtaan si yàlla tamit mën laa waxtaan ak yow ba nga mel ni yaa ngi si biir yàlla mais yàlla kenn mënu koo misaal daal li si ñu bëgg a wax léegi nag raza yi nee ne قد تيممت بالسعيد زمانا وانا الان قد زفرت بمائي قد تيممت تيمنا بالسعيد جسم زمانا في جمانا وانا الان من تي قد زفرت بمائي امنا نخ من سرى مطبق الجفن كيف كنت نخ بكي لن يقم قمون يعني ضخ te sa bët yi dañoo gumba wa adha fatihan nga mujj te yàlla ubbil la sa bët laa yaru buxaaril amaari doo ko delloo ci gumba abadan kon man nag ndekk dama daan li ma daan dox yëpp sama bët yi dañoo gumba waaye tey nag sama bët yi xippeeku nañ te dootuma dellu ci gumba boobu loolu la Gazaali wax ñoo ngi ñaan yàlla yàlla nañu saxal yàlla nañu yàlla saxal ci xam yàlla képp koo xam ne yaa ngi si mbooloo mi xamagoo yàlla yàlla na la ko yàlla xamal képp ku nekk ci mbooloo mi te jàppatoo tarixa bi yàlla na la yàlla jàppaloo tarixa bi te nga xam ne ngëneel tarixa bi yàlla nañu yàlla may liñ dëgg fii ci àdduna may ñu ko si àllaaxira ci darajay rasulullah saa sallam ci darajay ahmad tijaani ci darajay mawlaana cheikh ibrahima al jannaar waxtaan bi gàtt na lool waaye nag xam naa. incha allah dañuy xuus yi xëy na la. ba xol yi. waaw waaw waaw bisimilah. la la la Allah. حام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينام